institut Hikmatul Yawmi pour l'éducation et l'enseignement islamique centre Cheikh Ahmad Bamba Touba Daaru Tanzil ak institut Hikmatul Yawmi pour l'éducation et l'enseignement islamique centre Cheikh Mamadou nekk ci cité ouvrière ñoo leen di may xikma bi ku ci bëgg leeral ngir indi fi sa tout tànk nga woote ci 77 633 77 ndax ñaari daara la yoo xam ne jot nañ koo ubbi ba dongo yi ñoo ngi ci jàng dongo yu góor ak yu jigéen ji nekk tuuba ji nekk cees tey ñu fas yéene xekk ma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasuul te mooy wéyale li nu tàmbali woon yéen fan yi te mooy soññeeb sëriñ bi jëm ci ñi jiite mbooloo jëm ci ñëpp waaye rawatina ñi jiite mbooloo te démb ñu indi woon ci tàmbali bu ama am solo ci lim doon waxanteeg soxna Awa Bousso te ñun ñëpp ñu mën koo jariñoo te ma daanale woon waxi as Seex Saalix Mbàkke jam waxoon na yoon wi kat yoonu ñëw leen ñu dem la waaye waaye du yoonu dem leen ma ñëw kon ku ci nekk ku nekk nekk responsable maanaam nekk ku jiite mbooloo donte ñetti nit la jëwrin nga jëwrin nag lañ baaxoo woon a xam ci moom mooy day na ci kanam solub tengaadam jiite liggéey ba di soññ ña topp ci gannaawam waaye du toog ci kër ga naan liggéey leen maa ngi leen di xool euh, te sëriñ bi ni ma ko waxee rek loola ñëpp la ci daan soññ waaye ak njabootam sax la ci jiitaloon foofu moom sëriñ mas naa woo Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Fadal bañ ñëw mën a leen dama bëgg ngeen doxantu ci réew mi te jaari ca Sanna te te te jaari ca Siré jublu ci sëñ Siré Lo bañ génnee ñu ne ah gannaaw sëñ Siré loo la la tudd nañ ko nañ fa njëkkee fekk sëriñ bi daree na yabaloon ñu doxantu ci réew mi Euh, def ab tukki bañ demee Sànnusi dal na sëriñ siréloo ñun kat sëriñ bi dañoo wax ñu doxantu ci réew mi tudd saw tur moo tax ñu njëkkee la sëriñ siré na leen te moo leen ku baax kee leen wax loolu ñu ne ko waaw mu ne kon de dafa bëgg ma dénk leen waaye dénk naa leen ngeen ngeen defar seen bopp ba leen gis bëgg leen defar seen jikko ba ku jaxasoog yéen dootu leen mën a muñ dal na leen bu ngeen doonee ay sëriñ day ñu doon ay taalibe lépp jag te dara du yàqu waaye bu ngeen doonee ay buur ñu dooni dag lépp yàqu te dara du defaru ne leen dem leen gis nga ñu nga xam ne njabootu boppam lañ mu yabal leen cib taalibeem waaye mu dénk leen kàddu yi dëgg yooyu ak kàddu yi laabiire yooyu yi nga xam ne nii ñoom bañ génnee dañ ko daldi jariñoo fa saasa kon Sëriñ Tuubaa naka jëkk ñëpp ak njub la leen daan digal waaye nag ñi jiite mbooloo dañ caa rawati ngir masuliya bi nekk ci ñoom maanaam responsabilité bi nga xam ne nii mi ngi ci ñoom mas naa woote itam ba ñu bari dajee ci kilifa yi maanaam ñi ñu wooyee seex yi mu ne leen yéen seex yi kat damaa bëgg a waxtaan ak yéen ne leen damaa bëgg ngeen xam ne gor yi ma leen di booleel bu ngeen toogee ci kaw ñu toog ci suuf di wuyoo seenu sant mel ni jigéen luñ am jox leen luñ jur tuddee leen booleeg di leen ñaanal ngeen yàgg fi téwér nangeen xam ne ci seen bopp lañ nekk waaye nekkuñu ci yéen maanaam ñoom ci seen bopp lañu ne ñoom ñoom ñoom taalibe yi li ñuy def lépp seen bopp lañ koy defal waaye nekkuñ ci yéen de ah ma bëgg nag ngeen góor góorlu ba fa ngeen di xamee ne ñoom ci seen bopp lañu nekkoon yéen it ngeen liggéeyal fa yàlla liggéey boo xam ne ni bu boobaa dangeen am ci lu ngeen jàpp dal ne xam ngeen lu ngeen mel ci seen biira ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne mi ngi mel ni ku amul gaal gu rëy cib dëkk gaal gu rëy rafet mu am ko cib dëkk te moom rek ko fa am nee na waa dëkk ba lu waaye rafet la dénk ko ne ko tëjal ma ko ci gaal gi nee na bu bisub waaj ñëwee rek kenn ku nekk day ñëw taxawu ne ko ana sama mbubb ma ma la dénkoon muy dind di joxe ba jox ñépp bu fekkutoon mu def ca gaal ga dara ñëpp dañuy solu ba jekk waaye moom day rafle kon rikk waay mbokk yi nañuy delluwaat ci njàngaleem sëñ Tuubaa ndax suñu borom day dafa maandu maandu goo xam nee na lépp lu waaye def danga fekk ma dencal la ko fa du jaawaloo du réer wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah moo tax Sëñ Tuubaa wax ci aw bayit ne lépp lu ab jaam def nit lum lu def dana fekk suñu borom tabaaraka wa la dencal ko fay ga du jaawoloo du réer fa kullu ma qaddamahul insaanu fa bil jazaa yajiihu dayyaanu te fa man yaxmal misxaala darratin xayran yara wa man yaxmal misxaala darratin charran yara kon nan góor góorlu te xam ne kenn defut kenn dara kenn defalut kenn dara lu waay def boppam